bismillahi rahmaani rahim astaghfirullah alazim lu tax nit ñi buñ déggee lu baaxul ci nit ku yiw taxaw temm ngir yaatal ko bam law ba daj fu ne lu tax nit ñi buñ déggee lu baaxul ci nit ku yiw taxaw temm ngir yaatal ko bam law ba daj fu ne lu teewoon nga jéggal nit te koy nëbbule sikkam ndaxam suturas bur yàlla yitteel na ci su ne goray xam safaan dencal ko mbokkam ba faatu ñëw ragal yàlla tax ak maandu ak xam na jëw bone bu leen weeratib jullit bu leen yàq ab deram ku fiy dund